jaar yaram wàcce saison bi maa ngi lay ziar bu baax yaa ngi ci waaw tur moo naka la Mamadou Ndiaye waaw Mamadou Ndiaye ren fan euh, màggal yaa def buzz ci réseaux sociaux yi de lan mooy sa ma may tuuti rek waaw man réseaux sociaux yi ah màggal gi na neex ndax boo màggal gi moom moo tëddee noonu di xalifa Mbargane di sama xarit ma tëj sama kër nekk ak moom muy nekk ku baax boo màggal gi saay bu wootee damay tëj sama kër ñëw ndax am yaram ab tegginam bëgg ñëpp kon di ko ñaanal lépp lu mu liggéey sëñ Tuubaa yal na ko yàlla fay. kan mooy borom màggal gi. Xalifa Mergaat. moom moom màggal gi. déedéet waaw sëñ Tuubaa moo ko moom. ah ok waaw. léegi nag muy defar nag ñëw nag moom si loolu muy xale bu am jom. xale bu am yar li mboo see wax ku gàtt xel da nga naan yow la gën a bëgg buñ doon lim du jeex su ngay banaan Ndiaye ba ma sonal dem moom moo ko ñawal ma espèce bi yàlla ngërëm loo xam ne amul commencement amul si ngël bi nga génne ci màggal gi laa bëgg nga mayaat ma ko tey en direct single bi. waaw mooy li nga doon woy naan fure xaw ma lan. kuy <laughs> yaa may ma ko ñëwal yëkkati ko. yaa eh, déglu leen. maa ngi lay ñëwal. waaw man lu may lu may way. mënu maa way. waaw li nga woyoon ci màggal gi naan gars yi ko ci fure xaw ma lan am nga am nañ ci 18 12 xaw ma nan la ko waxee woon nii. <laughs> maa leen kay maa faru. xoolal yëf daal loo mën a dégg. neex na waay waay déwénee nag ma am sama soxna indaale ko donc waa. amagoo soxna ba léegi yow. loo xaar ba amagoo soxna. dafa teel. dafa lan. dafa teel ah. ce que aw ma ñaar fukk at ak ñaar. ñaar fukk daa teel. gi daal neex na daal loo mën a dégg. xalifa ne da lay taxal jabar waaw. dañu ene temps def lu neex. yow boo ene temps kan moo koy tëgg. ah naa ko. la moo tax ko soxla jabar. ah parce que mooy li mooy nekk lu may noppal. ci nan mooy nekk lu ma arrangé lool. <laughs> nan la na ma toppatoo respecté sama ndey. Ah. waa bëgg lu ma neex. bu lay cuuraayal ak yooyu yëpp. ko topp. man dinaa ko toppatoo dama ko war a toppatoo de. Ah, ko gis te mu naa ma mon amour. <laughs> neex bàyyi bàyyi. ok xaritu internet yi ñu ngi toog ak engagement mi nga xam ne c'est un comédien très connu au Sénégal il est populaire ci réseaux sociaux yi rawatina li nga xam ne moom la ci màggal Tuubaa gi nga def Baay Faal liggéey bi di def des choses importantes ci liggéey bi yow euh, dara non maa ngi lay fay bu baax a baax mon ami mon frère di nuyu waa Feeling Dakar bu baax a baax a baax Dakar Live aussi waa Dakar Live tamit ñu ngi a baax man moom wax dëgg yàlla muy Tiwaawoon ba ma bokk sax su ma demee nii laa fay nekkee man xaw ma. même bu ah, kon ko Tiwaawoon nga bokk. waaw man taalibe Cheikh laa. ndeysaan juste dama ñëw ndax lan Sénégal lépp benn la comme li Mbose wax léegi Sénégal lépp benn la. Hmm. ndax boo xoolee boo demee Touba boo demee Touba ci mbirum yàlla la ñuy wax. boo demee Tiwaawoon mbirum yàlla la ñun ñëpp ay jullit lañ. Hmm. sëgg maam Abdou moo daan wax nañu tàppe xool yi. suñu diggante ñun ak ñi dul jullit asamaan ñun ñi nga xam ne ñun ñëpp ay jullit lañ. kon dañu war a ànd nekk benn hmm. dëgg yàlla maa ngi rafetlu trop sama teewaay bi parce que man gis naa ni ma murit bëggee ak ni ma jàppalee quoi man Touba bi xalifa ko Touba xalifa dafa ma bëgg jabaram bëgg ma xalifa dafa ma bëgg jabaram dëgg bëgg ma c'est la première fois ma dal ci këram mais xam nga dañ naan lu ko jar rek moo ko yor te ki la bëgg moo la sonal xalifa dafa baax dafa bëgg doomu aadama waaw loolu moo tax bi ma ma waxee ne ma su ma sañoon nga dalal ma ma ne ko lu ma mënti jàpp dinaa ko bàyyi mu ñëw dalal la incha allah ñu ngi critiqué bu baax sa nawle artiste comédien yi di wax que ni euh, ñu si bëri buñ nekkee ci dal yi dañuy wayaan cest à dañuy dal si ñi nga xam ne ay millionnaire lañ war ay richard lañ dem fa di leen ñaan xaalis di wayaan est-ce que artiste comédien vrai war na màggali ngir uti fa koppar non non même pas xam nga tamit boo nee xam nga boo nee suñu suñu artiste soo nee artistes rek da ngay globaliser lépp te dafa am ay artistes am ay tiktokeur am ay ñoo xam ne dañu juux ci milieu bi. am ay farceur. merci beaucoup mais milieu bi képp ku ci ku ko tarbiyu jaar fi nga war a jaar. tey boo demee ba yàlla dénk la succès di nga xam naka ngay gérer sa carrière lu dul da ngay di def yu négatif cest à succès moo doon loo xam ne dafa dafa dafa jafewut. mën nga toog di ko wut mais bis boo ko amee mën nga ko ñàkk ci une minute sans dépend ci say geste sa mal communication loolu la rek nit ñi ñoo ñoo jékki-jékki suubu ci milieu art mais du ñëpp ñoo ko mën a gérer parce que nañ xam ne na ma yàlla baal ne dañuy taqale la kër gu ñuy dal kër gu bakkane lay doon ci climatiseur lañuy la ñuy dëkk ba noppi kañuy dalal day doon koo xam ne bu leen buñ fa demee mën nañ ko wayaan ñaan ko xaalis wala ñu laaj ko xaalis est-ce que loolu rafet na ci artiste quoi loolu rafetul mais ñi koy def dama naan seen xel moo tollu foofu seen mais lu toll ni màggalu Serigne Touba yàgg naa dégg ñu ne loo fi def rek moom la la borom màggal gi def fay. kon man lijjantiwu ma nit ko am ak nit ko amul. parce que boo toppee nit ki ndax am-am bu am-am bi jeexee nga dem bàyyi ko boo toppee nit ki ndax tur bu tur ba jeexee kenn déggatu ko nga dem bàyyi ko man su may ànd ak damay ànd ak moom kóllëre gu ñu yàlla boole di ñaan yàlla mu sax ba keroog muy dem wala may dem wuy ji suñu borom. man loolu laay àndee ak relation ak Niankou dafa divorce wala. Niankou sama frère la. Niankou gis ni bokkatoo leen série épisode yi nekkatoo leen non ñànku moom sama frère la. ñoo nekkandoo non booy da ngeen xuloo rek da ngeen am problème. jotee maa yàlla dara ngeen xam na ko amuñ benn problème juste que moom mi ngi nekkoon clair de man ma nekk dégg euh, compagnie bu ñuy wax dégg jàmm te lépp nekkoon biir yëmbal ak caaro ci banlieue bi mu nekk sama frère ñu yàgg demlante ma daan nekk ba biir këram jabaram pour te dire chéri la may woowee dama ko doon wax yow yaay sama jamaale jabaram bi bi noonu ngeen. te jabaram chéri la lay woowee te ngeen te ñun gisuñ ko. ah njëkk naa ko gisuñ la de maa ngi fa woon guddi gi dama amoon spectacle ma nekk ah, fa suba bi ma xëyee ay 10 heures 11 heures maa ngi ci ngénte li bi ma nekkee ci ngénte li ba 14 heures ci laa ko tàggu dem ñibi daal di dem parce que dama amoon spectacle géejawaay mais ñànku sama xarit la sama frère la ñun ba ñu xam ñànku yaali bañ koy xam du tey ñun ñoo nekkandoo woon ci terrain bu metti woon lool ñu daan jóge festival bi fanaanandoo ci école yi di dem ci centre formation yi pour wuti ji xam-xam yàllaa def ci moom lii maa ngi koy ñaanal yàlla na ko jig non dara ñaawul amuma benn bërki démb lañ daje 2S bërki démb lañ daje benn télé doon tourné benn émission mu mu gis ma conseillé ma parce que dañu yàgg loolu du tay loolu kenn loolu yaale an lañ xamoon xamuñu ñànk ko ba muy sol benn tenue bi tere militaire bi loolu du tay te loolu lay doxal ba tey fu ñu gisee dina ma dinañ waxtaan donte tey temps bi amatul mais saa bu ñu gisantee dinañ waxtaan dina ma xamal ni aar bi nii la ak nii la ak nii la te loolu la rek man xale laa mais bët bu ma waay xoolee xam naa ko ñaanku sama frère la nit ku baax la. parce que dañ ne ñaanku la dugal ci frigo bi moom mooy scénario bi mooy bind. leen gis yéen ñaar ngeen daan joué. loolu jamonoy théâtre sur scène la woon ñaanku mosuñu bokk tournage boo xam ne caméra moo ñu tiim. ñaanku jamonoy théâtre sur scène la nekkoon léeg-léeg mu am pièce boo xam ne daf ma ci bëgg a sélectionné mu sélectionné ma ci ma ñëw mu mu exposé pièce bi ma ñëw bokk ci sélection bi daal koy joué léeg-léeg ñu am spectacle ñu jël troupe mu jël troupe ak suñu troupe boole ko ñu dem joué mais démb la loolu tay mais producteurs yi dañoo gis ne léegi dañ leen rocc ci série yi jël man yi animateurs yi journalistes yi ñi siiw di ñuy jouer série yi mais léegi yéen les vrais comédiens yéen ñi nga xam ne da ngeen jàng théâtre yéen lañ leen a écarté yéen bokkatoo leen ci série yi non écarté wuñ ñu sax cest à dafa am ñoo xam ne xam nañ suñu valeur xam nañ ñoom ñu bindee série fan lañ war a dem ba jël ay acteur ñoo xam ne xamuñu ko cest à dañuy jël seen benn affiche su casting rek dañuy jël dañuy jël affiche su bi rek daal di daal di tasaare bu ko defee ku ci nekk ku dul kuy artiste ak ku dul artiste ñëpp ku ci jot rek day dem bokk ci casting bi mais nag milieu bi donte mënoo wax parce boo ci soree rek dañ naan da nga soxor mais buñ ko bàyyi woon ak ñi ko moom ba tey day gën a avancé mais tamit du ma du ma du ma ñi nga xam ne tey bokkuñ ci milieu ba pare ñëw ci parce que ku ci nekk ak sa sens mais écarté nag ñi xam suñu valeur dëgg ñu parce que ki dem na la jël ma bokkut ak ki nga xam ne daa toog ba nga soxla ko ne ko kaay ma jël la ci série bi ñun woowuñu kenn ni ko jël ñu dañoo toog su ruuxu di ñuy jël fay ñu xaalis bi weex tàll waaw JP de passage ñu ngi koy jaalee tout la famille yow aussi comédien nga moom muy doon artiste acteur la euh, même euh, c'est vrai que du du du du du comédien acteur la mais seen nawla la li ngeen def moom moom lay def euh, suñu doon dogal mu génn àdduna yéen comédiens yi ban taxawaay ngeen ci am. waaw dañ koy métti lu trop dañ koy métti même bu nekkul woon comédien rek diggante doomu aadama ak doomu aadama rek dafa doy waar kon bu wàññeeku li nga mën rek mooy ñaanal ko ak waxal ko lu baax. man miinuma ko bu baax mais gis naa ni frère bu modeste la parce que à travers ay vidéo am ak li ko nit ñi seedeel daal yàlla mooy xool li gën nag mu def ko donc kese